yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. léegi bu ñu ba ñëw ci heure seeteer boobu bu ñu dikkee li ñuy def mooy di dem jël peese bisaab bi indi ko fukki kilo lay doon buñ ñu dikkee ba peese ko danañ ko dindi am maam lu koy war a taxal yëpp dañ koy dindi ba noppi ba mu set ñu doot koy def ci ndox raxas ko mu set. nu door koo mën a def ci ko bi nga xam ne ci lañ koy seeg ci lañ koy xooje li ñuy xooj nag eh, bi seet ci bisaab fukki tarmuus ak ñaar lay lay doon benn bu ñuy def quarante litres mu doon quatre cent quatre vingt litres loolu loolu lañ koy defee buñ xëyee suba di ko ànd ak jigéen ñi nga xamante ne si léeg-léeg ñooy dikk dina ci jàppale bu dee lu jamaat ci li nga xamante ne si moom nu leen koy suukaree nag buñ seggee bisaab bi ba noppi balan koo def ci tarmuus yi dañ koy séddale ci dañ koy suukar ci bari ko ba noppi di ko door a jël di ko def ci tarmuus yi bari ko bu laam liñ ko war a suukaree lépp mi ngi doon soixante-dix kilos dañ koy boole noonu rek suukar ko ci biir bari ko ba noppi buñ ko suukaree door koo jël def ko ci ci tarmuus bu ne ñu sotti ca quarante litres nga xam ne tarmuus bu ne bu ci defee quarante litres day yam net ci li nga xamante ne moom lañ xoojoon ci bari ko bi noonu lañ koy doxalee.